sëriñ bi njariñ la loo xam ne sëriñ bi njariñ la loo xam ne àndul ak loraange àndul ak loraange sëriñ bi daa am bis ci gabon sëriñ bi daa am bis ci gabon sëriñ Touba Xaadim Rasool sëriñ Touba Xaadim Rasool daana dem bay fóotal boppam daana dem bay fóotal boppam ci saayir ci saayir ca gabon ca gabon am bis am bés mu fóot ay yéreem mu fóot ay yéreem ba yeggal ba yeggal li may nettali lu wér la li wér la mam Cheikh Anta Mbacke mam Cheikh Anta Mbacke moko netali serigne mustapha Moustapha moko netali serigne Modou Moustapha Ceytu ne serigne Touba ko netali ne serigne Touba ko netali serigne mustapha Ceytu moko netali sama wajuru góor mustapha Ceytu moko netali way juróom bu góor mu netali mako mu netali ko xana xanaa wér na ah, kon li ma bëgg a lu am solo la neena limi li muy bëgg a lu am solo la serigne Touba ci bopam serigne Touba ci bopam neena dafa foot ba yeggal neena dafa foot ba yeggal bi mu ba yeggal bi mu ba yeggal mu jël yéré serigne sëñ mu jël yéré mu jël yéré yi ya. ko ci ñax mi weer ko ci sàkket ba ci ñax mi ci ñax ma ba mu ko weeree ca ñax ma ba ko weeree ca ñax ma nee na bi nga xam ne yàlla ji mel ne lu xiin nee na bi xam ne yàlla ji mel ne lu xiin nee na bi mu xiinee bi mu xiinee daal di tàmbalee taw daal di tàmbalee taw sëriñ bi daal di jël yére yi sëriñ bi daal di jël yére yi daal di koy dugal ci benn néeg bu fa nekkoon daal di koy dugal ci benn néeg bu mu nekkoon nag benn soxnaa ko moom néeg boobu benn soxnaa ko moom soxna daal di jël yére yi soxna si di jël yére yi ngir bañ gi mu bañ sëñ Tuubaa ngir bañ gi mu bañ sëñ Tuubaa daal di ko xër ca taw ba daal ko xër ca taw nee nañ sëriñ bi keroog sëriñ bi keroog daa tawte mu yére ya daa taw tawte mu yére ya nee na ñu teg ci ayu bis bis booba ba mu dellusee nee na mu teg ci ayu bis bis ba ba mu dellusee soxna sa dugg ca néeg booba soxna sa dugg ci néeg booba di féexlu di féexlu néeg ba lakk-lakkaale ndaw si néeg bi lakk-lakkaale ndaw si waa dëkk ba dajaloo waa dëkk ba dajaloo ñëw ci sëriñ bi ñëw ci sëriñ bi ne ko ndaw si da dalaa def jëf ji ne ko ndaw si dalaa def jëf ji bis bi mu la ko defoon bis bi mu la ko defoon dellu si dellu si mu faatu mu faatu yaa ko rey ko rey sëriñ bi ne teg sëriñ bi ne teg ñu wax ko ko ba muy ñetti yoon ñu wax ko ko ba muy ñetti yoon sëriñ bi ne leen sëriñ bi ne leen man njariñ laa man njariñ laa loo xam ne aw ma lore waa loo xam ne awma lore daat ne leen daat ne leen soxna soosu de soxna soosu de bi mu ganee àdduna bi mu ganee adduna ba ni mu faatoo ba ni mu faatoo musta def lu neex borom musta def lu neex borom suñu boroom ne faw faw dana ko lakk suñu borom ne faw dana ko lakk te jàpp gi mu jàpp sama yére yi jàpp gi mu jàpp sama yére yi tax na dootul lakk tax na dootul lakk suñ borom ne naa ko lakk ci àdduna suñ borom ne àdduna bu faatoo dem àjjana bu faatoo dem àjjana moo tax jërëjëf sëriñ Touba ñun dañoo war a sant sëñ Touba ñun ay murit lañ ñun dañoo war a sant sëñ Touba waaw ay murit lañ sëñ Touba dafa wax ne li aw si lasi uridu mhm. wal sax bi yal waraa mhm. yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma lépp lu may sàkku waaye boo ma ko joxee na nga jëriñ bindef yëpp ci man dellu ñaanaat na nafaani yàlla jariñ na ma wa bi yan fon lu waraate ci man la mbindeef yëpp di jariñ te yonent bi sax li muy màgg màgg mbindeef la te sëñ Tuubaa moo ko wax waaw nee na yàlla jariñ na ma te ci man la mbindeef yëpp di jariñoo loola rek war naa tax ñu sant sëñ Tuubaa ba xëy jóge jërëjëf sëriñ Tuubaa Santat Serigne Saliou Mbacke bu wér a di santat Serigne Saliou Mbacke bu wér a wér di ko santaat bu baax a baax a baax di ko santaat bu baax a baax ci xéewalam yëpp nag ci xéewalam yëpp di ñaanal nee ko ñaanal jot nañ koo jàngal alxuraan jot nañ koo karim bi weer wi teroo ba léegi bi weer wi teroo ak legi yene ko ko yéene ko ko defal ko ko addiye defal ko ko addiye ngir jëmmi borom Touba ngir jëmmi borom Touba jàng ay ay lim yi nga xam ne moom lañ fi feeñal. ngir lii nga xam ne moom lañ fi feeñal. ak lim yi ma joxe woon ngir ñu jàng ko. ak lim bi mu joxe woon pour ñu jàng ko. lépp mat na. lépp mat na. ñu ngi koy def addee Serigne Saliou Mbacke. ñu ngi koy def addee Serigne Saliou Mbacke. bés bi nag li ko sabab. bés bi lii sababam. mooy sëriñ bi ci boppam. mooy sëriñ bi ci boppam. dafay jóge dafay jóge ci saayir. ci saayir. daanaka mën nañu wax ci 27 wala 28. 28 la. daanaka mën nañ ne 27 wala 28 la. maanaam bis boobu nag. waaye bis boobu nag. bu jotee. bu jotee. dañ ko ciy ñaanal. dañ ko ciy ñaanal. di ko ci sant. di ko ci sant. fu mën a nekk. fu ñu mën a nekk. bañ ko daan defee ca Touba. bañ ko daan defee ca Touba. dama ko daan defee ca Touba. ba mu ko daan defee ca Touba. dama ko daan defee ca Touba. da ko daan defee ca Touba. wala Kaffrine. wala Kaffrine fu mu mën a nekk. fu mu mën a nekk. dañ daa def ngontul xasida. dañ daa def ngontul xasida. di jàng alxuraan. di jàng alxuraan. xasida ak xasida. niki daaw. niki daaw. la ma fekk fii ci cité bi di Mixta. la ko fekk fii ci cité bi Mixta. ñu defee ko fi. mu defee ko fi. Euh, li sabab nag. li sabab nag. maanaam ma waat ko fi. mu defeewaat ko fii nii. ndax jafé na sax ay mbir ndax jafé na ci ay mbir ndax fi ci cité mixta ndax fi ci cité mixta ndaje bu melni ndaje bu melni nii ñu ngi fiy am mu ngi fi doogay am ñu ngi fiy door a Serigne Touba ñu ngi fiy doogay sante Serigne Touba ci khasside yi ci khasside yi gisuma tamit yenen xéetu sante guñ ko fi sante gisul nak benen xéetu sante guñ ko fi sante ndax 2014 ba légui ma ngi fi ñew ndax 2014 ba tay mom mu ngi fi ñew te 2014 la ñëk ñew dakar te 2014 la ñëk ñew dakar kon kon kon manam ma ngi fi bëgg ñew ay at kon mu ngi fi bëgg ñew ay at

kon amu fi woon. kon amu fi woon. yaakaar na amu ko fi. te yaakaar na ni it amu fi. xam naa nag ñu ngi ko fi bëgg. kon xam na ni it ñu ngi ko fiy bëgg. ci li ma dégg. ci li mu dégg. kon loolee it taxawaay bu rafet a rafet la. waaye nag ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax nag. waaye nag ñuy sant sëriñ Tuubaa bu baax ñu am yéene jàng fi xasida. ñu am yéene jàng fi xasida. ak alxuraan. ak alxuraan. jaamu fi yàlla. jaamu fi yàlla santeeku sëñ Tuubaa. santeeku sëriñ Tuubaa. ngir sëriñ Saaliw. ngir sëriñ Saaliw. waaye nag. waaye nag ginnaaw loolu. ginnaaw loolu. damaa am yéene. dafa am yéene. ñi fi nekk. ñi fi nekk. te jàpp ne. te jàpp ne. adduna kër la. adduna kër la. ma leen ciy ñaanal. mu leen ciy ñaanal. suñu borom wëlbati leen. ba seen borom wëlbati leen. suñu borom wëlbati leen. suñu borom wëlbati leen. ba seenum xel. ba seenum xel. jëm ci suñu borom. jëm ci suñu borom. ak sëriñ bi ak sëriñ bi. di ñaanal it nag. di ñaanal it am bépp bàkkaar bu waay am. bépp bakkaar bu waaye am. suñu borom jéggal la ko suñu borom jéggal la ko. defal la yiw defal li yiw. maam yiw wi ñu fi daje yëpp. yiw wi ñu fi daje yëpp. yàlla sotteeku ci jullit ñu fi daje. yàlla sotteeku ci jullit ñu fi daje yëpp ak mbokk taalibe yëpp. ak mbokki taalibe yëpp. maa ngi tuub nag. mu ngi tuub ci ñaan gi ma waroon a njëkkee sëñ Muntaxa ci ñaan gi mu waroon njëkkee ci sëñ Muntaxa moom mi ci sëñ Touba ci kaw suuf moom mi fii sëñ Touba ci kaw suuf ndax sëñ Muntaxa kat ndax sëñ Muntaxa kat day sëñ tubaa ba noppi day sëñ Touba ba pare ba nopp mate ko mate ko ba noppi feeñal ay tomb yoo xam ne day wéral sëñ tubaa gi ba pare feeñal tomb yoo xam ne day wéral sëriñ Touba